de retour sur le plateau matinal Allô Sénégal ñu ngi ci virage bu mujj bi ñu ànd ceeg ni euh, borom secret yi Fawzeyni tey thème bi lan la ci lan la ñuy waxtaan. ok nawet bi dafa nuyoo. boo yëkkatee baat bi tuuti dafay gën a baax. ma ne nawet bi dafa nuyoo si. Ah, sañse bi la. ñu yàlla dugg ci bisimilahi rahmaani rahim. waaye génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin mhm. muy lu baax ci ab dund ku ne xam na ni ah, bokki baykat yi mu ngi ci tool yi di ruuj mhm. di waajal tool yi nga gis ñoo xamante ne dañu jël ay milliards wala ay millions yu bari mhm. ci marchandise di ko suul ci suuf ngir yaakaar ci ak nangu kon loolu ak gëm yàlla la te ñu jar di wax waaw góor lan ndax li ni bay mooy duggaat ci askan wi. Mm. ba nit ñi di ci mën a dund. kon jar nañ di jàppale ci fànn yu ne fànn yu ne ku nekk la ngay liggéey rek mën nga leen cee jàppale. Mm-hmm. ñun nag li nga xam ni mooy sunu liggéey di sunu xidma muy xilmu asraar ñaan comme ñoom dañoo gëm yàlla ba jël seen alal di ko suul ci suuf ndax baykat kenn gënu ko gëm yàlla. xalaatul dana nëb xalaatul dana sax xalaatul mën naa bañ a sax ndax léeg-léeg nga gis ku ji mu saxayaay bañ a sax wala mu yàqu ci biir wala mhm. ñu ji yaakaar ni léegi mu taw te suñu borom kenn mënu koo natt mën naa toogaat ay weer am na marchandise nu mu yàggee ci biir suuf bu ko fa ndox fekkuwul rek mën naa yàqu mhm. kon baykat ku gëm yàlla la mhm. waaye tey ñu indi ci ay njariñ ci wàllu kii bay te bëgg li ngay bay naat njariñ lii nga xam ni maa ngi ko ciy bëgg a joxe kiy bay te bëgg la muy bay naat su ko defee ci ab tool ak lu mu fa mën a bay insha allah rabbi dana nangu suuf sa suuf sa dana am digalu nangu dina nangu waaw dana nangu ndax hmm. suuf day am digal ci nangu wala bañ a nangu da ngay bind fatiha aay boo bind nga dem ci waqiha laay yooyu suñu suñu borom naan afaraytum maa a antum tasraxuuna am nahnu raasixuun loolu jàngkat yi dañ ko firi afaraytum maa taxarsuuna antum tasraxuuna am nahnu raasixuun borom bi dafa wax ni xanaa gisoo leen li ngeen di bay yéen a koy bay wala maa koy bay loolu lay ci aay aay boo bind ci faatiha nga bind afaraytum ma taxrusuuna antum tasraxuunahu am na nahnu raasixuun di ko ràbbile noonu ba am ci hmm. juróom-ñaari faatiha su ko defee nga boole kook ñaan ngi muy àndal am na ay wajxal yi muy àndal ak ay hmm. allahuma yi muy àndal dafa xaw a takku nga def lépp saafara saafara si nag mën naa doon sax bu la neexee bëri ko mën naa yaatu hmm. soo jiwee ba noppi nga di ko wis ci tool bi moom nga koy arrosé waaw boo ko ci wisee rek wiis ko ci lu tolloog jatti yoon rek. Mm. moom mën ngaa bàyyi suñu sunu borom. tool boobu de insha allah luñ fa mën a bay maanaam dana naat ba jaaxal borom tool bi. Mm. waaw maanaam sunu borom ci boppam mooy jox suuf si. ndigalu mu naatal meññat man fay bay. dana am ah, na kilifa yu mag yu ne ci réew mi doon ay baykat maa ngi siyaare baax sëñ Talla Mbacke moom sëñ ba moom sëñ ma Manoumbe kon a xamoon na sëñ ma Manoumbe xàbban baykat la bu mag waaye bu nee bay xel yëpp dem ci sëñ Cheikh Saliou Mbacke mm-hmm. kilifa yi boo gisee seen tool daan nangu dañ ci daan boole yi fee képp ku ko defee nii mm-hmm. insha allahu rabbi ngay bay doo ci am mukk la naqari bu nu joxee secret ci wàllu bay ci wàllu tool da doon joxe secret ci wàllu luy aar tool léeg nga gis koo xamante ne toolam day naat lool. Mhm. xam ne moom amul jafe-jafe naat waaye day ñëwaat am ci lu ko naqari. am yuy ruul ci suuf xeeti rab yi dugg yàq ci lu bari. Mhm. waaye walla nit sax ñëw jël fa lu mu moomul wala mu yàq fa. wala mu jël mhm. alalam. moo tax tool dafa laaj tamit aar. soo wutee ki bëgg toolam aaru ba dara du fa mën a yàq. day wut ñeent boppu mbëtt xam nga mbëtt. Hmm. mbëtt sax boo demee lu bari ci tool yi lay nekk. mooy lekk mooy lekk gerte gi. mooy nduróog bar. mooy nduróog bar waaw mooy lekk gerte gi mooy lekk tamit. Ah, mbëtt mooy nekk si kii. ci àll bi lekk jaani ndaw yeeg mbott yeeg. yooyu lay lekk waaw yooyu lay far. day léegi boo xoolee ci suuf saraan yeeg yooyu suufu gerte gi moo fay gas. boo fexee nag ba am ñeent tool yi boo xasee ba boo fexee ba am ñeent bopp mbëtt waaye ci tool yi baykat yi dañ koy gis. Hmm. ñeent bopp mbëtt nga dagg ko. Hmm. su ko defee mbëtt ma boo ko mënee jëfandikoo moom baax na ndax daggan na dañ koy xew. am koy lekk waaw. nga bind ñeent laxat jaakum. laxat jaakum ku nekk mm-hmm. nga sexal ko boppu mbëtt bi ba ñeenti boppu mbëtt yépp seex laxat jaakum ñeent koñu tool bi mm-hmm. koñ bu nekk nga suul ci benn boppu mbëtt ñeent koñu tool waaw yow sa lu compliqué na nag de duñ ko jaawale tool boobu insha allahu rabbi mm. boroom su ko neexoon mën naa dem tëdd nelaw day waaw ba nawet bi jeex bu ko neexee mu ñëw jalaat du fa fekk dara lu ko naqari. ba am benn yàqu-yàqu. kaaraange gu doyo doyo gu waar la kaaraange gu assuré la ci wàllu tool. dara loo fa mën a yàqal léeg-léeg gis koo xam ne day gëj ca tool bi ñëw fekk fa lu ko naqari. <laughs> waaye lii mag ñi daan nan ko def ci wàllu tool. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. kon soxna Aïssa. Mm. yooyu lañ ci joxe xam naa bu ñu demee ba incha allah dugg ci biir nawet bi. Mm-hmm. wàllu. secret yi jëm ci wàllu dënn ak melax surtout loolu dama ko ci musal nit mhm. ndax bari na danger yu ci mën a xew yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu musaana xiin téere yi neena na daan tiit ndax day xam fii xiinuy tawul ci jàmm moom xelam du dal mhm. Mhm. waaw ndax xiin bu xiinee ba ñuul maanaam problème yi mën a indi balaa sëbët dafa bari ndox bu baree mën naa lor. dëgg ngelaw li. bu saxee mën naa lor. dënn yi mën naa lor. Mhm. Mhm. melex yi mën naa lor. taw na ba tàyyi mu siwet nga gis problème yu bari am. dëgg surtout Sénégal. am na ci nag ay ñaan yoo xamante ne malaayka yi nga xam ne ñoo yor wàllu loolu. Mhm. soo ko doy def suñu boroom mën na laa musal. bu ko defee dafa am kilifa gu mag gu may laaj ci wàllu bayra. bayra bayra bii may joxe nag. bayre lan bayre njaay ci doomu aadama ah. waaw hmm. maanaam nit ñi buñ la gisee dañuy mel ni weñ weñ gis màngo waaw li ma ci njëkk wax nag mooy ku bëggul bayra bu ko def <laughs> ku bëgg bayra te amoo gàllaajit bu ko def hmm. waaw damaa am digal wax ko rek <laughs> hmm. waaye kon lu ma ko wax léeg nga gis koo xamante ne day génn ay nit laxas ko di jooy wala ay nit gis ko di lox lii la ñuy liggéey waaw walla lu mel nii la liggéey te su ma ko waxee ñi xam dëgg dëgg dëgg alxuraan xam dara ci asraar nan xam ne lii may wax yanu na maanaa ndax li may wax dafa méngoog loolu da ngay werd astaxfirullah téeméeri yoon téeméeri yoon waaw maanaam cent fois cent fois mhm. sëg guddi nga weer de allahuma salli ala sayyidina muhammadin nabi lumi wa ala alihi wa sahbihi salaatu googu téeméer yoon nga liggéey aaya yonti yàlla yuusufa nga xam ni boo ko jigéen ñi gisee dañ doon dagg yàpp waaye buñ ko gisee danoo danoo fàtte ni yàpp la ñuy dagg bay dagg seen loxo yi ndax gis ñu ko gis moo waral lii. moo aaya ba mooy falamaa raynaa wa akbarnaa wa xatalnaa wa ayluhunaa wa qulu haazaa Allaahu maa haazaa basarun in haazaa illaa malikun kariim loolu nga liggéey ko moom it 41. Hmm. léegi turu talzam bi nga liggéey ko 313. mooy yaa xas kakanin kaka yaa ilu kaka toosin yaa xas kakanin kaka yaa ilu kaka toosin 313 nga koy sikar am na ñuy noté de. nga sikar nga teg ci ñaan gi liggéey ko 55. fayaar bi zawi ñii bi yi maagi tuhaa ki diya al badri nga liggéey ko 55. nga teg ci ñaan gi allahuma saqir li nisa al alamin min masarixi lardi wa maxaribiha wa saqir li jami al asdahi nga liggéey ñaan googu 55. nga tegaat ci ñaan gi. liggéey ko koy def 55. Mm. allahuma salli ala sayyidina muhammadin saahibil aswaaji daahiratin wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wajdib ilay fi moom it 55. doo ko tëjee salaatu salaatu salaatul fatiha boo ko defee weer rek weeru yàlla rek boo ko defee moom di nga gis maanaam résultat maanaam nit nit ngay doon koo xamante ne foo nekk la ngay def koo koy defandool sa mbooloo dana dal ci seen kaw maanaam nit ku nit ñi yéew ngay doon. Mm. waaye nag lu baax yombu lépp loo xamante ne boo koy def. Mm. bëgg cee ab bëgg am résultat day laaj sonn ci sa guddi bu waxtu wa jotee da koy def kon loolu dafa am kilifa gun koy gu amoon ndigal gun amoon ndigal ci moom joxe ko. waaye sax bëgguñu ko woon a joxe kon soxna Aïssa foofu la ñuy rek incha allah. jërëjëf euh, y a des questions c'est bon Kajo Pape man am naa question par contre. Mm-hmm. loolu nit ki am na am na ñuy seetaan j'ai reçu message nit ki moo koy defaral boppam. Mm-hmm. wala dafa am ku ko koy defal jox ko ko. waa loolu nit ki bu fekkee da nga koy defaral da koy bind jox ko bu sangoo ko pare nga weer dal ko ko weer. weer. waaw xaw ma kan moo la koy defaral nag waaye koo xamante ne day am sa jot dëgg lay doon <laughs> ndax waxtu sangoo ba pare ki nga ko defaral bu fekkee moom du ko mën a liggéey xam naa war nga ko fay lu bari moom ci xaalis waaw ndax bu ko bindee ba jox la ko ni la dee ko sangoo heure heure sàngam heure boobu bu jotee danga koy woone ko maa ngi koy sangoo mooy commencé weer moom it mu tàmbalee di ko weer la waxtu woowu yéene la ba mu mat un mois bu fekkee nit ki moo koy defal boppam nag jarul mu koy sangoo moom bu waxtu jotee rek da koy liggéey moo tax ma ne koo koy defal man moom personnel du ko mën a defal kenn ndax dama amul jot waaw waaye nit ku nekk mën na koo defal boppam. wala mu la ku koy képp loolu ku koy euh, ku ci a def rek fexeel aussi mm. euh, psychologiquement nga waajal la bopp. Mm-hmm. mentalement nga waajal parce que. Euh, bayre baax na certes mhm. mais il faut nga am les pieds nga nekk koo xam ne am nga benn base bu solide mhm. base euh, psychologiquement je parle bu solide parce que boo bu sa dund changé mhm. surtout si si fànn boobu noonu euh, si tu n'as pas les pieds sur terre ah, et tu n'es pas bien entouré soo moytul rek bayre boobu dina mujj doon musiba. musiba mën naa doon xam nga li nga wax ni dafa am solo. maa ngi mhm. koy wax ci tàmbalima bi. nit ki bu mënee defar kër goo xamante ne def na ci cinquante million wala muy dawal oto boo xam ni def na ci cinquante million te mënut a def ci jëmmam. Mhm. un million kooku bu deewee moo xaru. suicide la. waaw maanaam nit dafa war a am kaaraange. dafa jiitu ci doomu aadama yi mm. ndax suñu borom ba mu bindee nit ñi ba pare dafa def nii seetaan nit ku nekk la nga sabul bëgg ko mm-hmm. moo xam muy lu baax moo xam muy safaan mm-hmm. mu ni inna labra li fi naximi wa innal fujjaara li fi jaximi ku def lu baax am lu baax mu fay la aljana ku def safaan mu fay la safaan léegi nag nit ku nekk bu fekkee da ngay góorgóorlu ci football gëm ko mën na la caa dimbali ba nga egg ci fosor yi mm-hmm. bu fekkee da ngay góorgóorlu ci bëre moom nii la def mën na la caa jàppale parce que loolu nga sabab ba nga doon mbër mu mag bu fekkee da ngay góorgóorlu ci journaliste <laughs> yàlla mën na la caa dimbali <laughs> mais Fawzeni ah. dama dégg aussi mm-hmm. Euh, am ñuy wax naan carrément boo gëmee torop li nga xam ne mooy mystique dafay dem ba da ngay weddi suñu borom parce que nit ku nekk boo juddoo ci àddina yàlla bindal na la sa sa tracé na la sa chemin mm-hmm. maanaam ñun ne peut échapper à son destin mm-hmm. donc boo jëlee lépp li nga xam ne euh, mooy sa gëm-gëm rek wekku ko <laughs> wekku ko ci sa sëriñ <laughs> donc euh, après après yow sa mujj du rafet loolu est-ce que dëgg la waaw bu fekkee mystique mm. mystique moom dafa araam fekkee dangaa gëm yàlla gis nga yonent bi danaan ñaan danaan ñaan ci boppam wax na Seydina Omar bu ma fàtte bi Seydina Omar di dem di di hmm, bu ma fàtte ci ñaan tanzana hmm. ñaan daan liggéey nañ ko tamit jàpp ko jabar nañ ko waaw moo tax suñu borom ni laxat laxat kaana lakum fi rasulillahi iswatun hasana yàlla da koo def pour ñu koy roy moo tax suñu borom ba mu bu yonent bi bàyyee boppam noonu rek suñu borom seetaan gaa yu ko liggéey jekku ko mhm. loolu mi ngi jàngale ni ginnaaw kii moo bàyyi boppam ñu jekku ko ku bàyyi si bopp man naa cee maanaam ñu mujjee mu jekku mhm. parce que kooku ko gënal ci jaam ñi mhm. te ba ko liggéeyee daa jàpp ndax yonent li mu gën a nit ñi dund li nit ñi dund di gën a mat moo tax yonent bi lu nit def rek ay léegi-léegi sa gër Euh, doo taal léeg-léeg nga feebar léeg-léeg ngay leb yooyu yëpp da jaar na ci am ñu lay bañ am ñu lay yàqal loolu lépp jaar na ci am ñu lay bëgg. Mhm. léegi. Mm. Euh, li mii di laaj laa ko bëgg a tontu ñaan tey boo amoon sa mbokk moo xam ni sax yàlla da koo may taraanga ju bari sa jur boo xëyee doo ko faale doo ko xool doo ko laaj bu yàggee dina ni kii moom xanaa yëgul li ma yàlla defal. Mhm. suñu borom dafa bëgg koy ñaan. ndax li yor dafa bari te doyewu ko dara te jaam ñi mm-hmm. rek moo tax te kii ñaan yàlla nangu na ni ñaan yàlla am na kii dem naa ñaanal ma ci yàlla nangu na ni ñaan yàlla am na nangu na ni sama aajo yàlla moo ko moo ko mën a faj bu fekkee nit ki bi muy juddu li war a lekk lay lekk jaratul kenn di ñaanal kenn naan ko yàlla na la yàlla may xéewal jaratul kenn di liggéey sax ngay xëy rek toog ku nu wax yàlla nga am xéewal it bul wax amiin parce que amatul sens. dëgg la bu fekkee nit ki nit bu mu juddoo bis bi mu war a dee yàlla pare na ci jaratul kenn naan kenn yàlla nga gudd fan mhm. ku nu wax yàlla nga gudd fan it bul wax amiin parce que amatul saas mhm. waaw fawsee ni nga baal ma mais est ñaan yi tey benn lañ tey bu nekkee euh, ku nekk ak sa religion tey ka jox mi bu jàkkaarloo Yeesu Christa mhm. tàllal ko loxo ñaan ko ñun ñu julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi tàllal suñu borom loxo ñaan ko mm. ak ñaan bi nga xam ne da ngay ñaanuñu ñaanuñu Seydina Muhammad yàlla la ñuy ñaan ci bi boog ñaan suñu borom comprendre nga. léegi est-ce que ute wut at bi nga demee ci euh, Fawzeyni ñaan lu pour mu ñaanal la est-ce que ñaan yi benn lañ. xam nga doon wax ni gémmiñ doomu safe euh, lu mu ñaan mm-hmm. ne gémmiñu Fawzeyni yow mi ñaan munoo fexe ba mën cee fen mm-hmm. nga xam ne tamit dafa dem ci ab barab ba mu yaakaar. muy barab bu nit ku baax mm-hmm, mm-hmm. ñaan yàlla ci barkeem tey boo demoon barabu sëñ Tuubaa masala doo dem naan sëñ Tuubaa may ma loolu ab jaahil moo koy wax ku xam mm-hmm, da nga naan yàlla may ma ci sa barkeb wàlli bii tëdd may ma ci barkeb yonent sàngam suñu borom may la ci barkeem waaye ku tëdd moom da ngaa war a ñaan yàlla da nga ko war a ñaanal da war a def ay lixlaas ñaan suñu borom dolli ko njëggal ak yërmaande dolli ay leeral Pape on termine euh, rapidement euh, euh, bi lan nga si wax si affaire Bayero bi dama ah, yonte yàlla Youssoupha. waaw si affaire xam nga dañ koo tuumaal ndax suñu daf koo bindee mu doon nit ko rafet nit koo xamante ne soo ko musaane gis da ngay yéemu koy bëgg xam nga yàlla du yónni ku amuti mbokk. waaw du yónni ku ñaaw du yónni ku amul fit ñett yi moom yàlla du leen yónni. ndax boo amati mbokk pour ñu dal ci sa kaw xeex la day yomb il faut am ñun lay ragale du yónni ku ñaaw ndax ku ñaaw dara dul neex ba nga koy gëm du yónni du yónni tamit ku amul fit moo tax yonent yëpp dañuy am fit mhm. dajale mboolem mat xeetu mat yëpp yonent yàlla yi soo dafa rafetoon mu dem ci benn xew bi mu nee tëll rek fekk jigéen ñi ñu ngi dagg ndawal gi pour bëgg koo togg yonent yàlla yusufa dugg see rek ñu tiit ci rafetaay yonent yàlla yusufa ba fàtta ni ndawal gi lañuy dagg di dagg seen loxo yi yonent yàlla yusufa demee lan xool ni naka te ñoom li ñu doon dagg doonatu ndawal seen bopp lan doon dagg ok waaw ah, léegi aaya boobu la suñu borom naan falamaa raynaahu wa akbarnaahu ban ban kii la ban aaya la ban sawaat la haazaa basarun inna haazaa al-maalikul kariim moom la bi la la wax ban suraat la nu mu tudd laa aaya bi aaya bi falamaa ray na wa akbar naa wax dana uxul anzala ma anzala basar inna anzala malikul karim ok boo ko bi boo ko bindee bu fekk na dafa bokk ci li ngay werd mm-hmm. pour nit ñi bëgg la ci kay fayaat bi ma joxe léegi mm-hmm. waaw maanaam ci bayra lay dox daal c'est bon mais mais tur mais turu Sonatel boobu gudd gudd na. loolu hmm? bi dafa gudd quoi. turu. surat bi da koo bëgg a jàng ji pour. wér ko boppam ah da nga koo bëgg a mën. pour am bayre bon. <laughs> mën naa la ko bindal mën nga koo bind am na téere yoo xamante ne uh-huh. uh, bu fekkee ci arab bi eh, eh, mbindum arab bi mënees na ko bind ci français dafa am leeral ko loolu mënees na ko bind ci la koy gën a maîtriser merci acca c'est bon foo jaar mu defanteet ma fa la si coran bi dama ko bëgg a jàng en fait pour huit dinaa la ko yónnee am na ay wax tamit ñoom ko soxla quoi merci beaucoup yow Sass jaajëfal nañ la ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi. <laughs> waaw kay jërëjëf di wax xanaa euh, lépp lu ñu fi wax rek lu jub ci sunu borom subhaanahu wa lu ci dëng nag ñu xam ne ab ab jaam bu matadi moo doon wax ndax yàlla rek a mat euh, secret yi nu fi joxe muy wàllu mbay mi ak wàllu kaaraange tool bi ak wàllu bayra bi. Mm-hmm. képp koo xam ne da cee bëgg a am lu gën a leer da ngay woo ci sama numéro yi. 78 530 69 81. bayra bi de lañ lay gën a nga woote ci 76 883 18 76. wala nga bëgg a seetlu wala nga bëgg a listixaarlu insha allahu rabbi ñu wax la say biir li ngay dund ak li sa kanam ak jafe-jafe bu mën a ne ci sa yaram ak lu ko waral ak li la jig ak li la jigul insha allah seet gu leer a leer a leer lañu yor mm. listixaar gu leer a leer a leer lañu yor sa mi na ko mais mais mais kii mi ngi mais mais Oustaz tontul sama question. aywaay Pape tamit waaw man ñi jàmm non Oustaz sura ban suraat la nekk laa wax man loolu man aaya la ma. waaw nee na dina la ko yónnee. ah d'accord dinaa la ko yónnee. E na ko jàppul kii naa merci. dama koo takkul. ah d'accord dama koo takkul dama koy laaj ndax moom da koo bëgg a wér du wala lan la ci sonn kii. kii baal ko rek xam nga par exemple su ma ko bëggee jàng Oustaz mënuma sukkandiku ci li nga wax rek pour jàng ko. léegi dina la ko yónnee foog ma xam suraat bi nu mu tudd. te yow foo jaar kii ñëw ñu daal. dina la ko yónnee Oustaz xam na lu may wax voilà. waaw wax na dëgg moom day laaj ban saar la de. voilà exactement saar bi su. Aïcha xam na lu ma su su ma xamee. Aïcha xam nga li mais Aïcha mais surat bi su ma xamul ban surat la. lu oustaz nu mu wax mënu ma xam fan mënu ma ko xam. ñëw rek rek kañ maanu nga nag xam <laughs> xam nga xam nga suuraat yi day gàtt. waaw ne suuratul Yaasin. suuratul Lixlaas mais yow Saas. Euh, ah, aaya bi la jox mais man amee ah, Aïcha mu ngi mel ne benn livre cent pages kajoor livre c'est deux cent pages nga wax ci benn phrase. man nu may xamee fan la léegi dina lay yónni si bu dee affaire yi maa tax a sunu andam dasar koo am na relation la. waaw moom ci waaqia la nekk. d' accord waaw. waaw si Yusuf voilà mooy. bu dee falamaa rey na waa bari na waxatal naa ay doon wala azal ma azal basar. yaa jàng kay benn xale du la ci ñëw ma nga ca Baqara. mais bi nga resté sànq bu nekk Youssouf bi wax si Youssouf ban surat la. ca Baqara la nekk. waaw ah, Baqara alif laam kitaab laa rayba damaa xamul nag. ci bi ban numéro la. numéro bi nag laa xamatul fu mu toll. <laughs> waaye ci biir Baqara la nekk. <laughs> kii naa Diop mi na <laughs> kii naa tàggatoo. bàyyi na naturel nga am yow ñëpp la bëgg arrêté la. <laughs> Aïcha merci beaucoup j'espère que vous avez aimé l'élément d'aujourd'hui di leen wax ne mën ngeen am l'intégralité à 13h30 di wax merci beaucoup à Siste Maria moom mi nga xam ne moom ma mettre en rapport ak euh, ki nga xam ne mooy jaaykatu jënam voilà mu nekkoon ay nit yu gentil nag yu yu yu ay xale yu brave may nañ ma jën yu bari moo ma jaaxal moom kër bari na de ñaata bari na trop mais ñaata boobu ba léegi maa ngi ciy togg mercredi ba mercredi semaine bi ndax mot na cent mille yow Pape Malick Aïcha ma xëy na tàggatool baal ko baal ko tàggatoo yow lu tax tu as le don chaque jour ci matin bi balaa may tàggatoo faaw ñu jote. xarit rek de à demain Aïcha merci Kina jaajëf en tout cas li ngeen di énerve énervante yéen ñaar bari na torop ñu bàyyi la ku nekk énerve morom. Euh, ñu ngi nii ñëpp et d'habitude c'est le grand amour ah. quand deux personnes s'aiment tous les jours. boo xoolee ba ci biir c'est le grand amour bëggeel bi. Ah, mooy def dina ko saytu quoi xam naa parce que moom spécialiste la quoi. yow sax foog nga li si ma ñaan. Euh, ñu ñu ngi nuyu ñëpp di seetaan ce matin. mon amoureux. ñu tàggatoo voilà. I love <laughs> Kajoor merci. excellente journée à tout le monde. <laughs> allez merci à toute l'équipe jaajëfal leen bu baax a merci beaucoup à Ousseynou euh, Mouhamed ak ki nga xamante ni moo di euh, yéen a yaa ngi may kii sax yow. yaa ngi may gis <laughs> waa Régis yéen ñëpp merci maa leen di jaajëfal Khady ak Babacar mi ci suuf toute l'équipe de la matinale. 10h di ngeen am seen flash d'information 11h ngeen am Sister Maria et sa team euh, dans la mi-journée moi je vous retrouve à 14h30 dans votre émission. Slow time d'ici là, portez-vous bien ah, et passez un excellent moment sur nos âges. Bonsoir Paris, ça va bien